sëriñ suñu xalif suñu wasila di El Hadji Mouhamadou Moustapha Sylla moom la ñu fas yéene kon jottali mbooloom jullit ak doomi aadama ñi xam ne tey utali nañu guddi gu sell gi de kon mbokk yi ñu taakirlu ñépp noppi incha allah ñu jox kàddu gi Abdoulaye Sylla mu jàngal ñu ay aaya alquran bismillah منكم الذين ملكت أيمانكم the فإذا بلغ الأطفال منكم القلم فلا macha allah alhamdulilahi rabbil alamin lii lañ doon séntu ci moom te itam di wax rek ni yal na ko yàlla def mag moom Abdoulaye Sylla te itam yal yàlla wëral baat bi def ko mag mi am diine ñu fas yéene jox kaddu gi ki nga xamante ne moom mooy Youssouf Fati mom moy njital daayira Kassim silla be tax nak mu fas ko dalal gan ñi nga xamante ne tey ñëw nañu wuy si leen ci bi le woote bi nga xamante bismillah moro ibulola man so le alakee la ku moom mooy ibu loola man soo na yeddu wàññee yu faati teeroo ibu loola man soo na yeddu waa safiyatu tuure ibu loola man soo na yeddu wàññee mu ngi nuyu mbooloo mi fi teew ci turu eh, sëriñ bi di El Hadj Mouhamadou Moustapha Sylla manta discours ke la def na defu discours na taro ɗi dariya kuntum ko yaala o yaatinnaɓe kafo kontonna nu mu doonee njiital eh, li nga xamante ne mooy daayira Kaasimu Silla mi war a jotaay bi moo a nag mu jël kaddu ngir dara leen jàmm ci biir a jotaay mbe kontondiro ko lowla nafanko ñatonko walla mum président Macky Sall da digal ñawolna wargamnaɗo représentant mo yande ka muye na ngërëm yi ak sant yi da koy doore ci suñu njiital réew di président Macky Sall rawat na ci ko fi toogal di madame ne mooy envoyé spécial am katani ñaata wona ñamma banko bi ñatonkole baɗo ñatonkole ko banko ka fo kete ɗa o ɗan gon kete damo ñanta kon ɗon nana ka fawi ko bisimilla waɗa nee na noonu la gën a jekkee te itam noonu la gën a rafetee mu euh, dooree nuyoo yi ak sant yi ci ki nga xamante moo kilifa réew mi e eh, naara tontu faafan sa fono ñu naan nañ daane saamu na kontaan na lool ci li nga xamante moom la gis fii tey ndaxte daayira bi nga xamante taxawal nañu ko ak lu mu gis tey en daal bëgg na ci lool min mu yooñeen kafoo jaa kana moo jaaxal nee na ñëpp ñu gis mbooloo mi tey lu mu toll ci dayo bu mu jaaxal kenn. kaatum daayira yaa toola moom mooy El nee nag ndaxte nag daayira bi kuñ ko tuddee di El Hadj Kassim Silla. yu amantu nee na kookee nu mu xaare yàlla xaare wu ko doomi aadama. ay ñu ne doy nee na saa su nekk bokk na ci ay ñaanam yi yàlla na yàlla génne ci moom nit ñi nga xamante ne bés dina ñëw ñëpp ràññeeku ci taxawaayam ci wàllum diine te loolu dafa mel ni ñaan bi yàlla nangu na ko ndaxte jëmm ji toog nii de Alhaji Mouhamadou Moustapha Sylla dafa mel ni ñaan bi nangu na Moustapha ah, na miiroo to ngaa lonko ala ye a fana alama a man ke moon dinti nee na moom gëm na ni Mouhamadou Moustapha Sylla mi toog nii dundi ku ndaw alla waɗoyo matérial on mbaɗa mbiiɗa fof wat karam laato soma ndaala ɗum délégation naata nangi miiro kafude a fana sufiyata jeelati nee na wàlli yu nag yàlla rek suñu borom moo ko xam waaye lu ñu ràññee ci moom ci jëfinam ak itam ci doxalinam maa ne solo jàpp na jege na ko mu naan nag moo ko Moustapha yaa fànn gindi nee na lu tax mu wax loolu mooy ne Serigne Mouhamed Moustapha Sylla daa wàccee boppam i ko yaa fole karam naat ko on ñaaɓe ko lantuyo ko ka waɗa de loolu sax moom nee na dëgg na ay kilifa di wax ne borom xam-xam du rëy te saa foo gis nag day wàcce boppam. ado Moustapha xandir di meraw nii naa benn ak sama boobu de ay kontaan bu lépp loolu. nee na nag Moustapha Sylla mi ngeen di gis nii même xale bu ndaw bu koy nuyu jaral na ko mu sibbi ay dàllam. moo doom ak jikooto. nee na loolu nag la bokk. woto ñun daay nee na kon boo leen gisee mbooloo mi toll ci dayo bi loolee warta jaaxal kenn nee na ñëpp ñu fi teew daayira yi ak képp ku soldar lam ñëw fii ci mbooloo mi mun la fay nee na CICES ak yenn bërëb yi bërëb yi daanaka dafa xaw a xëcc trop ba tax ngeen bàyyi lépp ñëw wuyu si leen loolu mbégte la. adum ah, mankaale son bi moo mën na te itam neexaluñu kenn ngir nga ñëw teew ci bés bi. vingt nee na képp ku fi toog wala képp ku fi teew daanaka ci say lijjanti bopp nga fi teewee. mbé jaay la mbé tontu la mbé tontu la comprendre tontu la nee na mu ngi leen di gërëmaat leen di santaat. bi xamut ana a la dayoo di yegg ɓe daalnante mum ɓe ɓen te jangginan koɗe ɓe kendemaɓe nan jaade kayra fa kom di ñaan itam ñëpp ñu fi teew ren déwén incha allah yal fi ñëpp teew te kenn mu manqué te itam képp ku am aajo yàlla fajal la sa aajo surtout mu soxla mbéy tam la fonfon bi jaay rawatina soxna yi nee na mu ngi leen di gërëm leen sant lool ka koy daayira Sénégal bi l'islam moom ni yaa jibee fonfon assumu abadan assumu musool lépp nee na bu ñu xoolee diine lislaam fii ci Sénégal fekkente ne am na ren reen bi man sañu jàpp ne soxna yi la niaje moo fo wuleer na kàddu nun ñoo ko te daawoo daan yee konte musooli ka saake wudi si ñaa sab nee na lu waral ay kàddoom daanaka seetlu bi mooy ne bu ñu wootee na jëm diine soxna yi ñoo ci ëpp oto musoolu daayira bii Sénégal bi lislaamu moo sàkkoo noo ko yi ngay apparemment muy jëllet nee loolu war na wala boog tax na mu jàpp ne jigéen ñi ñooy reenu diine fii ci Sénégal. mu ngi leen di gërëmaat leen santaat. Euh, nee lii la amoon ci kàddu yi muy yëkkati di leen gërëm di leen sant bu baax a. adama billahi itakullah. jamaa teg jiito ku jooloog jiito ma ni dugul. waaw akan moo akan moo raf na ko. laa wala ilaha محمد رسول الله يا ابن آدم بالله اتقوا الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله يا ابن آدم بالله اتقوا الله ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ابن آدم بالله اتقوا الله أيوة يا ابن آدم بلاي تكون الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله يا ابن آدم بلاي تكون الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله يا ابن آدم بلاي تكون الله ولا إله إلا الله Mustafa silla la regola mi yu ko jola ka boramo billahi ji ko le hakayo la ilaha illallah muhammadu rasulullah aywa ya ibnu adama billahi itakun la wala ilaha illallah Mustafa silla la regola mi yu ko jola ka boramo billahi ji ko le yemitayo la ilaha aywa ya ibnu jagun bu ko kay la wala illallah o Mustafa Sylla na regola mi yuku jola ka buramu billa ji koli ya mitayu la wala ya ibnu adama billahi la wala inda lahi mi yu eregayo jikanere tuwa inda lahi mi yu mi e yu eregayo e na Mustafa Sylla inda lahi mi yu eregayo na Mustafa Sylla inda lahi الله ميو ارغايو ويا سنغال عند الله ميو ارغايو جيتاغو مينو عند الله ميو ارغايو جيلي سوماتي نابي عند الله ميو ارغايو جيلي سوماتي نابي عند الله ميو ارغايو كوبانا وكوكاي عند الله ميو ارغايو ولا يكالونا عند الله ميو ارغايو ويا بجغولو عند الله ميو ارغايو ويا بجغولو عند الله الله مي يهرغايو نمدير بوجا عند الله مي يهرغايو وما نمدير بوجا عند الله مي يهرغايو نمدير بوجا عند الله مي يهرغايو ونما نجي كاليرتو سيدنا محمد رسول الله عليه السلام بسم الله alhamdulilah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf suñu mbokku joolaa yi légui nak ñu jox kaddu gi ki nga xamantene mom moy yusuf jeju mo moo kon jël kaddu bismillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalam ala asrafil mursalin muhammad ibnu abdillah sayyidi rasulillahi wa xaatimi al anbiya illah asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi jéggalu di jéggalu sama sëriñ ndax bu ma fi ñëw di taxaw mu ne ma nanga wax joola di jéggalu bu baax waaye xam naa ne du ma mën a gëlëm ndax fu ma nekk nii sama xel fees na trop feex ma wax ci olof ndax si seen tunt lañu nekk mooy fii ñoo fi moom ñun ñëpp fii Sénégal waaye si seen tunt la la fi nekk ndax lu ma fi taxawal tey lu ma fi taxaw ci taxawaay ñeneen ñi nga xam ne ñooy waa Kaluunaay walla ma wax ne waa département bu Bignona ma wax ne ci waa fu eh, taxawaay waa Fooñi waaye fu ma ne nii bu ma gëstuyee mën naa wax ne wéet naa mën naa wax ne Casamance ndax ndax ñoom tey fii ci Sénégal lañu ñu bokk alhamdulillah sant yàlla bu baax wama ma sahidna illa bi ma allimna Moustapha yow dang ñu bugg a gëlëmal nga ne ñu bañ a wax olof ñu wax joolaa waaye lu may jëkk mooy damay sant sama liggéeyandool sama sëriñ suñu sëriñ ñun waa Kalunaay waa Casamance muy Khalifa Silla ndax boo gisee lii am taxaw naa gëstu gëstu naa di seet ci kaw ma kawel sama baat ne waa Casamance ñoo fi gën a bëre waaye waa Bignona ak Kalunaay ñoo fi gën a bëre bon na content na maa ngi koy gërëm bu baax ndax lii liggéeyam la moo fi nekkal Moustapha mi xalif tayba Silla liggéeyama tax tey lii mën a am ñu ne ñooy wala lu ñu nit ñi wax ne ninki nanka bu buggee xam ne moom ni léegi mat na day dem yemale ci garab yi dam day dem yemale boppam ci garab yi loolaa tax Moustapha nga ne bu ñu wax wax sa papa bu ñu wax wax keneen nañu wax yàlla waaye ñun ñoom amuñu kenn gisuñu kenn lu dul sa papa ndax ci lan moo tax dafa liggéeyal yàlla ku liggéeyal yàlla moom boo buggee weeru ci yàlla jot boo buggee àgg ci yàlla da ngay weeru ci moom loolaa tax Casamance ñàkkul kuy wax ci mbirum yàlla dina wax ci ay sirñam ñuy yéen loolaa tax Casamance angi gërëm bu baax di la sant di wax naa ne ñëw naa ci tur suñu xalif muy alxaaji Ismaïla Jeeju lu may wax yéen xam ngeen ko liggéey bu baax boo ko liggéeyee yàlla dina ko won mooy seen liggéeyaa tax tey bii bés yëg nañu ko xalif bi moom ci boppam yëg na tey moom la yàlla fi bay ci taxawaay faa Ousmane Bodiang moom laf fi yàlla bay ci taxawaay Fodé foo Fogni ndax mu ngi fi moom xalif alhaji Ismaïla Diédhiou yàlla man laa bay ne nen ni Moustapha ngeen nekk fii yéen nen yéen rek il faut yàlla xëcc leen seen papa xëcc leen ñooy seen morom ñooy seen morom il faut ñu xëcc leen yàlla xëcc leen ñu ñëw fekkee bés bi mu ngi leen di nuyu bu baax mu ne ma nuyu leen bu baax ñëw na ak daayira Kaluna yépp waaye ci tur dëkk ak Kubaanaaw bi nga xam ne yéenaa ngi fii waaye xalifaa ngi fi di dem fu nekk fi nga xam ne ay mbokkam Casamance ñu ngi foofu ni ngeen koy defee Casamance ndekete noonu nga koy def ngeen ngeen koy def fii ci Dakar loolu da ngeen kawel suñu baat ñun waa Casamance e Moustapha sa thème bi ne na nga ne ñu wax wàllu politique ak lislaam nga wax ci tamit ne am na lu ci rax ci l'islam te am lu rax tamit ci politique baatu politique waaye lii jot na wax lii jot na wax waaye lu ñuy wax ñun li ngeen war a wax li ngeen nekk di wax mooy nañu ne nit ñi nañu dal ndax diine moom yàlla moom moo ko moom diine tamit manul am feex nguur amul kilifteef amul képp ku nekk ci réew mi da war a am kilif kilifa réew mu amul kilifa moom réewum seetaani la moom la ñuy dégg fu nekk ñuy def ay ay ay foofu di mbubboo buubum lislaam ñeneen tamit di ñuy mbubboo buubum politique fii di yàq waaye lu ma ciy wax tuuti balaa ma ñëw si suñu làkk mooy yenn soose yi da ngeen ne kulkanto sumunaa akee maari faŋole tara xam naa ne ñu bare dégguñu loolu kulkanto sumuna akimare faŋole tara nee nañu saw ci der boo sawee ci der bi saw bi ci ci yow lay lay lay lay ñëw réew mi mën ñu koo yàq bu ñu ko yàqee suñu bopp lañ ko yàq loolu la sëriñ kilifa yi bëgg a waxtaaneel nit ñi yi te Moustapha loolu mooy liggéeyam mu ne man man lu ma fi andi na ñu ñëw ñëw déglu Moustapha lu muy wax ak as askan bi ndax loolu mooy liggéeyam moo war a wax as as yi ci askan yi yépp waaye ñun tamit mën nañu wax ak suñu mbokk yi ñàkkul yàlla nee na yaa ayuha naasu inna xalaqnaakum min zakarin aw unsa wa jaalnaakum suuban wa kabaila li taarafu inna akramakum inda allahi mu dal di ci teg de laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufu rahim bon na wax jot na mën ñu waxante feneen lu dul ci jotaay lislaam yéen tamit man leen waxal ñeneen lu dul seen taalibe seen bokk yi loolaata jamono politique la ñu nekk xam naa ni yéen dingeen ci maslaha ci yeneen maslaha yi nga xam ne kilifa dafa war a am maslaha waaye jamono ji ju ñu nekk ngeen jéggal ma ma jàkkaarloo ak sama mbokk yi balaa ba noo maam buke kala konku karam wala pa kureguro kuñambaas di ku puño boyanon bala boti politique kone boku nenu manu sankenaɓo dil islam bu e buma si jawore bare politique e wanumanje wo wa jakke katibu yon kuro ko ka kanon kala ko koko ngare kala kan manje o kenye ka jakke ku kanko ka jakut mati wano wanu juge ubaju tijata arunga wo wafon manje wakane tikor ban arungalata gondala ko dimo fam be fojuluti ko fojula ku kilawo kuña ko konen politique politique yoyenom anona mangun ko politique ere gati manaw jembe teɓati mo fam wanu ngole no mu kandi mo fam ɗi kone politique bare aw adan manje andi ka jantenolak aware mu jam manu janten mumuken wanu manje wa famu mawronge nu ngaru o mo kanemi tawi ma yone eh, ma allahuma ijal minal yastamiuna al qawla wa yattabiuna ahsan emi tawi kaneno laabu kan kanumanje ɓuke pakku janten dikkuri makko dikkumukendo wanumanje waffango maw jake wayno mo jaamu ujantene haali bara wurego jaaro funin fokkuji ya wurego fode nuju ka jaat kaku senon ko parenem gammo oyeñe tateñe ka kondi ka ŋaña ak taade kanu ŋañaña taade konan fana walla asan sek mar kana yimi tawi bonketeno lagar kana lakum fi rasulillahi huswatun hasana dolto e ka fot nin keɓa kaari lo nana loola jeesa bari sayi e ko ha mune ɓe kela a keɓal ye mune lon ibina dunna kana kaño kanna kikkataki keɓal la dolla tiña ka su wallay kana ka keɓanum naɓe funtila kafo ka aka parele aka funti kafo ka wala nan ba kañana moro assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu a baraka bake bake eh, yusuf eh, jeeju